bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi am nañu mbégte lool pour àndaat ak yéen ci sunu jotaay bi nga xam ne moom moo di asalafu ma al ci kër gi nga xamante ne moom mooy la maison du kora au Sénégal ci njiital Cheikh Abdoul Aziz Camara waaye macha allah yal na yàlla sàmm ko bu baax mu nekk nit ku jara ñaanal Yalla yalla, yombal la len bu baax ci kër gi nga xamne mom lañu ubbi tuddé ko këru alquran waye ak mboolem seen projet yi nga xamne naan la ko ngir jang ak jàngale alquranul karim ak tasaare ko ba ñëpp di ci jot jàngale alquranul karim ba lolu mom motax tax yéen ñëpp ngeen mëna jot suñu jotay bi nga xamne ne moom majalis asalafu ma alquran mag yi démb nan lañu daan dundé alquran ba ku ci nek mëna tok fa nga tok ci aduna bi yépp di and ak ñun ci bii la jotaay te ñu la ñaat deureum kon ñu jara ñaanal lañu Eh, tey nag mbokk yi ñu delluwaat ci mag ña ba léegi xoolaat seen wax yooyee nga xam ne dañ ko war a bind ak wurus waaye di ko liir waxtu wu nekk ñu xool ndax ñoom yoon wanu tege woon ñun ñu nga cax wala ñun saaraat na nu bàyyi na yoon bi bu yàgg ñu mën a tourner delluwaat tege waat ci yoon bi nu ñëkk ci ki nga xamante ne moom mooy Maymun bun Mihran al-Jazari Maymun bun Mihran al-Jazari ñëpp xam nañ ne moom moo nekkoon mu addib awlaadi Omar bun Abdul Aziz moom mu doon jàngal te mu doon yar doomu Omar bun Abdul Aziz mu nekkoon nit ku yàlla dénk ci wàllu xam-xam waaye ak ci ay wàll yu baree bari nee na leen taarifaat yi duñ di guddal ndax jotaay gi bëgguñu muy gudd dafa waxoon wax yaatu wax joo xamante ne ñëpp ko war a bàyyi xel ñu xool ko ak jamono ji dafa ne woon law anna ahla alqurani aslahu la saluha annaas allahu akbar maymun bun mihraan rahimahullah ne woon na law anna ahla alqurani aslahu su fekkoon ne ahlul qur'an maanaam ñooñ alqur'an yéwénal nanu maanaam defaru nan ba pare tey defare la saluha su kon nit ñëpp daañu defaru <laughs> dégg ngeen wax ji bu baax nee ne ñooñ alqur'an suñu defaru woon tey defare nit ñëpp daanu defaru kon ñooñ alqur'an wuyu leen waxoon naa leen ñan ñooy ñooñ alqur'an réew mi koo ci ne bokkoo ci ñooñ alqur'an mu xulloo ak yow te ñooñ alquran ngëneel yi leen yàlla beral dafa bari doy na yàlla ne su ma doon jàpp ab nit su ma doon bokk ci famille ci ñooñ alquran laa bokk doy na yàlla nee ne bokk na ci teral ma man yàlla mooy teral waa alquran doy na yàlla ne xayrukum mu awee ko ci làmmiñ yonent bi ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran te di ko jàngale kon mbokk yi ku bëgga tedd del teral ñooñ alquran dee leen xool yow mii am xaalis seetal benn million nga ne kii de ku mokkal alquran wëral ci mbedd mi ba gis ku mokkal alquran nga jox ko million ba wallahi yàlla dina la jox lu bari teral leen ñooñ alquran fexe leen ba seen kër yi ñooñ alquran di fa ñëw mu koy leeral loolu man maa leen koy wax mag ñi dañoo xamoon bu baax a baax loolu kon nee na ñooñ alquran suñu defaru woon tey defareen nit ñi daañu defaru Maymun bun Mihraan rahimahullah ki nga xam ne moom mooy al euh, Fudayl bun Iyaad rahimahullah dafa waxoon wax ju rëy moom it من حامل القرآن كي مكل القرآن ولا كي جنجل القرآن ولا كي كوي جنج ولا كي بوكو توا القرآن من حامل راية الإسلام كوكو مو مو يكتي مو يكي يرلن راية الإسلام ما نم درابو بالإسلام كوكو مو مو يكتي الله أكبر كي مكل القرآن مو يكتي درابو بالإسلام تلوهم fu mu dem na ko leer ne islam lay représenté guddi ak bëccëg suba ak ngoon moom mu ngi représenté kan l'islam kon lim la bëgg wax mooy responsabilité bi mu yor dafa bari lool mu ne laa yanbagi lahu an yalgu maa man yalgu du jaadu ci ma allaghwu mooy qawlun la faidata minhu mooy wax ju ñàkk wax ju amul benn fayda nit ku mokkal alquran du toog di werante ci loo xam ne amul benn fayda du toog di wax ci wax joo xam ne amul benn sens nga toog di werante ci match boo xamante ne kenn xamul xamoo sax ñan la nga toog ci ñaari waxtu ñetti waxtu ba mu bëgg jur leneen nga toog di waxtaan ci loo xam ne amul benn fayda nitu alquran du def loolu du toog mukk di wax wax joo xam ne amul benn fayda rawatina réew mi nga xam ne ñëpp yëfi comédie lañ bëgg yëfi comédie foo leen fekk nañuy wax nit ñi di reetaan kon nitu alquran loolu du cëram qaadi eh, al Fudayli moom moo ko wax Fudayli bun Ayaad nee ne jaaduwul ci moom an yalxu ma amay yalxu nit ki suy wax ay waxi caaxaanam bu mu la ci yóbbaale mukk ndax yow alquran nga mokkal alquran li nga xam ne mooy yàlli wax yi mu ngi ci sa bopp bii kon loo bëgg a wax kay doy na la tibbal ci bopp bi rek nga wax waaw wala ay yalhu ma amay yalhu al lahwu nag suñ ko waxee moom mooy lépp loo xam ne caaxaan jëfi caaxaan joo xamante ne imma ci wàllu coxeel moo la ca dugal wala nekk di wàllu ci wàllu woyantu mooy musique yi ah wala lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu fox loolu du cëru nitu alquran léeg-léeg gaa yi nag ñu yóbbaale la ci nga ànd ak ay nit ñoo xamante ne ñoom yow yaa leen waroon a andi ci li alquran bëgg waaye ñoom ñu mujjee laa yóbbu ca la seytaane bëgg kon nitu alquran du def jëfi caaxaan bu ci kenn dugal foo yi dafa bari xoolal réew mi ay fox yi feet yëpp ay feet la yoo xam ne pour foo di foo di fox di fox di fox di foo di fox mag du foo mooy li ñuy naan mag du dawal mbege kon nitu alquran mag la walaw kaana sagiran donte sax juróomi at la am moom mag la kooku warul foo warul fo parce que amatoo temps booy perte kon Fudayl bun Ayaad nee na nitu alquran du toog di wax waxi caaxaan wax ju amul benn sens wax ju amul benn fayda xoolal internet bi day gis ay kilifa ñoo xam ne ay nit a leen topp ñu toog di tontuwante di tontuwante di tontuwante di tontuwante ba kenn xamut lan la soo waxee kële tontu kële ne du ma ko mujjee mooy xale man du ma ko mujjee waaw xam nga jamonoy xale am na foo bi ñu doon def xaw ma coppati bii teg ci bële ku ci naan naan du ko mujjee ma ko mujjee tontuwante yi ngeen di def ci réseaux sociaux yi loolu lay niru ku nekk naan du ma ko mujjee c'est ça loolu du xam-xam ku nekk naan du ma ko mujjee nga tontu kii tontu nga tontu kii tontu am ñoo xam ne ñooy arbitre su ma seetaanee kii seetaan kële nitu alquran melul non te yow da ngay wote wa alquran mune xitam nitu alquran du top di fox rek di fox wala an yalhu ma am yalhu wala an yashu ma an yashu asahu xam nga asahu bis fi sala sujudu sahwi ñu xam ko moy lo xamante moy dafa am lo bàyyi wala am lo yok parce que ñàkk matuk doomu aadama moo ko waral waaye asahwu bi maana al aam yaani al gaflatu wa nisyaan nitu alquran du sàggan nitu nan ko baye xel nee na nitu alquran du tok di wax waxi caaxaan lu amul ben fayda nitu alquran du tok di def jëfi caaxaan nitu alquran day am fulla ak faydam amna yo xamne bu la ca ken gis nitu alquran du sàggan laa takun gaafilan al gaafil laa yakunu xaafida كيف تكون غافلا وأنت لكتاب الله حافظ وللسنة حافظ يبقى موك القرآن الكريم ولا يو داغي جانغ القرآن ولا داغي جانغالي القرآن ولا داغي ويو أستاذ nga sëriñ nga imam nga waroo nekk nit ku sàggan saay su nekk sa wirdul qur'aan yi dafa war a nekk ci yow parce que yow exemple nga parce que li annaka taxmil raayatal islam yow da ngaa yor drapeau l'islam nga téye ci sa loxo kon waroo sàggan mukk mukk mukk mukk wa yanbagi li xaamilil qur'aan dafay jaadu ci ki mokkal alqur'aanul karim wala nitu alqur'aan muy ndonga ba wala sëriñ ba wala ak kummanti nekk an laa yakuuna lahu ila alxalqi xaaja mooy wax jooju niñ koy dégge mooy maanaam aajoom bu mu nekk ci nit ñi alayka an taarif an laka rabban yacrifu xawaa'ijaka wa sayaqdiha innahu arhamu rrahimin innahu l acdami l akram sa borom mooy ki nga xam ne xam na sa aajo laaj ko ko dina ko dina la ko fajal sa borom moo gën a tabe ku tabe yàlla moo ko sédd ci la mu la mu yor soo déggee loolu maanaam nitu alquran du ñàkk fayda ngeen baal ma comme wax ji niñ ko waxee nitu alquran du mel noonu comme ni mu xewee ci jëkk ji bureau bu nekk nga dugg fa bureau bu nekk nga dugg fa wara liggéey wala war a dem xam ne alquran nga yor parce que nitu alquran yàlla du ko fàtte mukk toogal ci sa alquran yàlla di la andil bureau bu nekk nga dugg fa di yalwaan fu nekk nga dem fa fu nekk nga dugg fa tayal nga sax toog jàng talatoo jàng yaa ngi rijjeeku di dem di fàtte la nga xamoon tayal nga fu nekk nga jël diine ji di ko dóore jël alquran atarda an takuna min alladina yastaakiluuna bi bi bil quran alquran yonent bi waxoon na ñett koy lekk ñett koy jàng koo xam ne daf koy jàng ngir am lu mu cay lekk ak koo xam ne daf koy jàng ngir am lu ngur mu nekk di ko puukarewoo jàng na alquran wala mokkal na alquran ak koo xam ne daf koy jàng ngir yàlla bokkal ci ñetteel bi ña koy jàng te yàlla buur bi subhaanahu wa taala tax sa aajo sa soxla laaj ko borom bi subhaanahu wa taala yàlla dina la wammatal kenn ci ay soldaaru mbindeefam yu baax yi nga xam ne liggéeyal yàlla rek moo leen war yàlla boole la ak ñoom laa ila alxulafaa fa man dunahum comme que xalifa aajom sax soxlaam waru koo wékk ci président waru cee xaar Macky Sall kon su ko xaaru ci Macky Sall fa man duunahum num koy xaare ci ki nga xam ne moo Macky Sall suuf لك رب إنه الحي القيوم إنه القهار الجبار إنه الرزاق فكل الناس أكال للرزق نيت نيب لك كاتورسك لاج ني نيب دانو يالا داف لين دي جوخ نيوي لك واي يالا ماي جوخي خار كو موم دينا لا جوخ لانك تحمل رايه القران انت تحفظ كتاب الله mokkal alquran am na su doon jaay ay milliards et am na ñoo xam ne ñu dem jënd ko waaye yàlla may la ko ci garaat wi gratuit 604 pages xale bu ndaw mokkal ko yàlla def ko ci sa bopp bi kon doo ku ndaw alquran ku ndaw du ko mokkal <laughs> alquran du du yëfi caaxaan mokkal alquran du yëfi caaxaan li ñu dee du foowum gone yàlla loolu la la jox xamal yow yaay kan wa yanbagi an yakuna xawaïja alxalqi ilay li jaadu mooy aajo yi nit ki nit ñi nga fajal leen seen aajo yi masalan réew mi ku fi judd ñu ne wool nitu alquran ku fi dee ñu ne wool nitu alquran kuy takk jabar ñu ne wool nitu alquran lépp lu fi xew problème bu am ñu ne wool nitu alquran ku fi bëgg poste bu baax ne demal ci sëriñ bi mu yëkkati xalima bi wala demal ci sëriñ bi mu ñaanal la noonee la mag ñi mag ñi nii lañ meloon dañu daan toog ci seen kër yi toog ci daara yi lépp daan leen fa fekk lépp ñëpp daan ñëw ci ñoom parce que ñoom dañoo xam la ñu yor muy alquran alquran yor ko nga toog yàlla ña nga jëmm yamu mu tànn tabb leen pour ñu ànd ak alquran summa awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina ña yàlla tànn pour ñu ànd ak yow ci alquran gee daañ la fekk fa nga toog nitu alquran day am valeur ni nitu alquran day am qualité nitu alquran du lambar lambari fu nekk nga dugg ci mbedd mi nanu bàyyi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax kon lii la ñu mag mi wax a asalaf ma alquran nee nañ leen lii amu ci lenn loo xamante ni ñun ñoo koy waxal suñu bopp ñun ñoo ne kon dañoo taamu jotaay bi nañu teg majaalis comme ñi aw ci daara yi xam nañ li ma wax mag ñi nii lañ la koy jàngale comme que ñu ne jotaay bi nii la nañ ko wax comme ne ko mag ñi di jàngale kon duñ ca yokk duñ ca wàññi ñoom lii la ñu xamoon daan dundee alquran li moo tax yàlla buur bi subhaanahu wa taala may leen la bu leen may kon lii moo nekkoon sunu jotaay asalafu ma alquran tey ji maa kaana min sawabin fa min arrahmani wa maa kaana min xatain fa min nuqsaan salla ilahu ala nabi wa alihi ma la baamula bin aw tahallala muhrimu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh